waaw si bi mooy li ma la wax rek euh, nee naa la actualité la gars yi te soo seetloo bu baax a baax euh, suñu borom moom moo moom moo ci teg loxo parce que boo seetloo actualité bi nga xam ni moom moo xew ci dëkk moom la gars yi tey da ngay gis benn moment boo xam ni euh, day jàpp doomam di ko bay bayal ah di ko jubal yi ko toppatoo ba tax ni su màggee balaa mu bëgg kenn moom lay njëkk a déjà exemple boobu la ñuy respecté wu ma sama papa di def lu bon en retour gis la lu ma da ngay faire fi suba lo laal donc du baax xam nga ngay nekk ci difficulté tay nga contact suba nga perte loolu yëpp actualité la ci biir biir wi pour man loolu moo tax affaire bi am doon ndax très sincèrement comme ça man sama xol dafa te dama bëgg lu romat très man jigéen kap moom lépp rafet man loolu laa xam je ne suis pas agressif la ma yàlla bindee. est-ce ma nekk ci moom pendant dix ans boole ko aar ma ko def. bagage sama nijaay nangoo ko woon mais xam nga rek léeg ma liggéey ba pare leneen xool aar xam nga su ma paree après kër ga daal di toog metti woon na nag difficile woon na trop parce que nga mën a bàyyi liggéey bi dem ci def affaire aar xam nga aar moom pour il faut nga sant sekk ba mbay ba leneen ak leneen man ma ne ko nijaay bi la ci la nekk daal kon bàyyi ma rek ma naa ci yàlla ma persévéré dem ba nga xam ni jour bi ma ñëwee di ko tàggu ko nijaay damay dem Suisse ma wax kan yow ne ko ak ah nijaay ci aar ma bu lay passé non non ma bi aller retour loge nourri mu ne ah, xam naa li ma gën a neex waaw yi ma neex yi ma neex bëri na waaw yi ma neex yi ma yi ma neex bëri euh, yaakaar naa nag euh, bi ma gën a neex mooy bi ma demee ci yëpp def na choc mais bi ma demee sumbul di ko di di seeti sama jàmbaar euh, laa moom foofu loolu dafa ma jeu bi dafa naturel waxtaan ak moom ak jub daw bi parce que li mu doon waxee moo ma étonné ma jub daw tourné dajeeg sama yaay foofu noonu am naa mën a sentir bu grave après boo ko seetaanee affaire bi non seulement def na bës eh, et puis dafa dafa dafa dafa dafa rafet daal dafa nice. d' accord donc ñu gis nga sonal MC dëkk bi nga xamee ne que toujours mooy sa frère nga sonal MC ba nga ñëw di continuer noonu bay si inspiration. ça vient naturellement très sincèrement xoolal euh, xam nga soo déggee maa ngi koy wax ci biir texte bi xam nga toujours dañuy wax naan pour aayul. tag yi dañoo aay mais tag yi war nañu aay parce que tag yi ñoo fi bàyyi buur ma ne ko waaye lu tag yi aay aay aay aay bu rax buur ñëwee tag yi war nañoo mën a xam rax buur waaw comme moom dafa dëgër bopp ah ma defal ko affaire bi ma ko defalee affaire a laa la ut moo tax ma kooku si ko noonu. mais moom ko laajee yàlla ku daal da ngay suuf. ku féete suuf. kon naa ko daan wàcc ma daan naa la wóorul mu daan ma dee féete kaw. Ah. man maa féete kaw. moom de nee na suuf la féete taay loolu xew. waaw waaw kon bàyyi ko waaw suuf la féete kay. man ma féete kaw kon kay xanaa un un la. waaw leer waaw un un la. d'accord donc tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ne jeunes yi nga xamante ne dañu gis euh, jaase bi tayaat nekk na ko xam ñu bëgg ñoo dugg ci tayaat yan conseil nga leen waaw conseil ma leen jox d'abord mooy dañu toppatoo seen i mbir ba pare d'abord euh, tey dem sol tey damay continuer jàngat parce que ba léegi lii nii nii maa ngi jàng kon donc ñu continuer seen bi et puis avant tout ba pare même aar bi ngay def soo amul benn niveau bii doo def su la yàlla may trop trop trop trop diction bu baax sax doo ko mën a demal nga jàng ba pare après say cours nag nga xajal ko mais étude yi moom moo jiw parce que xëy na ñu référence lañu jaar nañu teg ko ci yoon ba tax ni nit ñi toog gis ko bëgg ko bëgg koo def. ça se voit ni gis xale yi dañuy ñëw taxaw dañuy gis action bu ndaw boo def ñëpp ñëw taxaw da ngay wax noppi leen ba sonn mais mënuñu def parce que affaire bi moo leen di étonné donc képp ci bëgg a dugg rek respectel say parents un euh, respectel say études respecté aar bi def aar mu éphémère éphémère ngay soo ko defee am xol parce que ñun bi ñu dugg ci aar voilà bi ñu ci woon ay suba ji rek benn bay dosé de di romb yi ñuy joxe pour suba nga liggéey ñu fay la leen sant pour la culture dañ doon jàng aar di ko jàng mu métti trop nag parce que euh, comme li ñuy wax dañuy wax naan l'art nourrit pas photo mais suy dilo bi correctement ah yaakaar naa ne mën la apporter benn part ça ak ni koy jàngale amoon naa soxla waaw amoon naa soxla mais yàlla dafa def ni nekk loolu am nii léegi léegi léegi Sénégal dafa nekk léegi waaw ci kàttanu yàlla baax waaw waaw waaw euh, kontaan trop euh, gërëm waa Sénégal di leen yàlla réew mi nekk ci encore yéen tamit parce que lu yàgg dëgg la di ñaanal sama waa ji aussi tamit Kader Diop euh, tey moo ma def ni ma parce que en de la ma ne jàmbaar dama am fi benn groupe vacance bu ndaw kaay nga ci jàpp parce que gis naa ni yow ñoo bokk li ñuy def tey confirmé nañ ko moo tax ma indi la fii salon magam muy Faxi Abou di euh, moom suñu yaay nga moom daal moo ma def ni ma def kon yàlla ko yàlla defal jàmm fa mu ne yàlla yokk ay leeram te may ñu gudd fan ak wér yaram ba ñu koy mën ko ñaanal euh, di ko toppatoo waaw di ñaanal aussi ay doomam muy dencoog ak say jumelle ak yooyu nga xam ne euh, macha allah kontaan. Euh, waaw dafa ci benn waay la woon mu doon mu doon màggal ci biir Touba mu jël xaalis bi ay 10 millions def ko ci mbalit dugg ci oto. dafa wàcc Touba rek dafa wàcc Touba rek ci loxo Mbacké këf malet bi daa wax moom ñu dem màggal màggal màggal ba màggal bi jeex mu jékki-jékki kii naan euh, bu ma demee Touba laay dal kii na Mbacké laay dal kii na man Janatu laay dal mu jékki-jékki na leen euh, kër yi dal ko ma amu leen fan la dem loolu <laughs> internet yi GFM ñoo ngi leen di